salaamaaleykum mbokku internet Dakar Midi ñoo amati mbégte kontaan naan tey ñu ngi invité ki ne tey naan la Mara di responsable politique bi nga xamante ne mu ngi nekk fële nga xamante ne mooy gëm sa bopp tey ñu ngi koy dalal fi nga xamante ne mooy Dakar Midi international Mara dañ koy bàyyi mu nuyoo ak ñi nga xamante ne tey mooy ñuy suivre fii si nga xamante ne mooy Dakar Midi Mara ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Abou. Mhm. Euh, di rafetlu bu baax invitation bi. Mhm. yombutoon nag. waaw sàkkoon naa ko bu yàgg de. <laughs> mais xat rek. dëgg la waaw donc di rafetlu émission bi. Mhm. di nuyu waa Bambey yëpp. Mhm. ndax Bambey fa laa juddoo fa laa yaroo fa tey jii mën naa ni Bambey mooy sama lépp. Mhm. donc di jiital nuyoo bi tamit président Bougane. nga xam ni tey ci wàllu politique mooy suñu kilifa. di nuyu waa sa bopp yëpp. di ci jiital euh, Bougane ñoom Mouhamed Diallo ñoom madame Thiam ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar. di nuyu tamit également wax dëgg yàlla sama responsable yi nekk à Bambey comme ñoom Thiendou Thiam mhm. ñoom maam Diarra ñoom Amina ñoom ñëpp ñi nga xam ni daal wax dëgg yàlla gëm sa bopp moom la ñuy doxal au niveau de Bambey dëgg la maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm bu baax a baax mhm. jërëjëf euh, Mara kàddu yi am na solo lool mhm. ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy lu jëm ci côté euh, Bambey Bambey gis nañ ne que carrément que ne Aïda Mbodj moo fa nekk mais toujours gis nañ ne dangay opposé pour li lan nga xaar pour nekk pour nekk maire Bambey waaw xam nga àdduna loo gis rek. Mm-hmm. ndànk daf ci am solo. dëgg nag euh, nit. Mm-hmm. da ngay bàyyi ba ba ba saytu sa bopp. Mm-hmm. xool sa bopp c'est pas question de dara mais. pour man jotagut may laaj mairie Bambey. d'ailleurs j'en ai ak ñu bari. am na ñu ko bëggoon nag am na ñoo xam ne bi ma defee émission. ba ma paree dañ ne waroo woon wax ni bëggoo nekk candidat ma leen sii. parce daf ci am lu bari lu tax mm-hmm. te it nag eh, man sama àdduna dama yàkkamtiwut ci dara mm-hmm. Bougane bëgg na ko bëggoon na ma nekk candidat à la mairie de Bambey mm-hmm. xeex ko ni ko ñëpp di xeexee ndax bu dee xeex mën naa xeex bu dee fit am naa fit <laughs> donc loolu yéen xam ngeen ci dara ndax dañuy dañuy mais àdduna loo gis rek tempo la quoi ndànk ndànk ndànk ndànk man pour man lu jot yomb et je pense que nii euh, man Bambey laa am awma lu ëpp Bambey fa falaa defee falaa laa falaa fa falaa yareew defee sama lépp. Mhm. man pour man. Mhm. Euh, jotagul daal. te incha allahu rabbi su demee ba jot. Mhm. du ma ko sa wax. donc nit ñee xam ne lii. lu jot jot la li olof Njaay naan lu jot yomb. mais pour le moment franchement. Euh, nekk maire daal nekkul ci samay ambition waaw nekkul sa ambition mais euh, yaa ngi créé foofu ay ay mouvement yoo xamante ne tey pour ëllëg boo xamante bu bu bu maaraaj soxlaa li nga xamante ne mooy Bambey yaa ngi koy créé foofu non man xam nga politique. Mhm. Bougane moo tax may politique. ok nekk naa Bambey. Mhm. Euh, gars yi ci sport bi lañ ma xame woon. Mhm. footballeur laa woon. di football bu euh, vacances yu jotee ñu dajee football. suñu paree bu ouverture jotee ñu dem jàngi. man loolu laa xamoon. donc politique ci Bougane. laa sole casquette politique. nekkal ko ab Bambey donc man. du ma créer mouvement. franchement. Euh, moom laa àndal di politique. te li tax may ànd moom di politique parce que dama gis politique bi muy def ma gis sa bopp. gis sa bopp parce que nit day gëm boppam. Mhm, surtout nag. Mhm. dafa nekk localité bu naqaree defee politique. Mhm. waaw Bambey dafa nekk zone bu bu naqaree defee politique. mais du ñu jaaxal parce que nos parents nous avons grandi. ci suñu wetu papa yi ñu gis leen ñuy def politique. donc am na luñ ci xam. ci ëtt bi ñu yaroo. màgge ci. politique xam nañ ko bu baax. moo tax bi am lu mu apporté ma gis ci sama bopp hésité wu ma sax. Mhm. et que Bambey maa fa njëkk a taxawal gëm sa bopp. c'était en 2018. Mhm. boobu man cundum. Mhm. maa ko fa recevoir. mbir nag di nga ko door. boo demee ba ci biir. <laughs> waaw nga bokk kook ñu bari loolu mooy démocratie. dëgg la loolu tamit dama koy rafetlu ndax tey. ku nekk yaa ngi réclamer mhm. ni man maa nekkal Bougane Bambey Bambey loolu mu nekk loo xam ne fierté la ci man dama ci kontaan mais mhm. foofu tamit am na benn euh, leeral bu ma fa bëgg a indi waaw bu ci mel Bougane mhm. amugul kenn ku mu taxawal wax ni yow yaa jiitu béréb sàngam def ni dem leen liggéey kon su ma déggee ay nit Bambey naan man maa fa nekkal Bougane di wax si bay tudd seen ay tur ay ree daf may jàpp pour wax waa Bambey ni leen Bambey dafa bëri ay leader ci gëm sa bopp ku ñu cëndu caam menn mhm. leader la mhm. Amina leader la Mame Diarra leader la ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite su ma limee damay juum ñoom ñëpp ay leader lañu ëppale wu ma leen dara mhm. ci gëm sa bopp vis-à-vis Bougane leader yooyu est-ce que yow euh, maanaam jotul ngeen def benn kii waxtaan seen biir ya nga may leader Bambey waaw mais xam nga waxtaan boobu la Bougane bëgg waaw mais Abou xam nga man tey maa fi waroon a nekk di réclamer le leadership man maa waroon nekk Bambey di réclamer le le leadership parce que xam nga lu tax. Mhm. maa ko fa maa ko fa doore. mais bu fekkee dafa am ñu wàlli siyaan mhm. biñ ci nekkee motul sax ay weer. Mhm. Euh, yor seen micro fu ñu dem taxaw man la man la man la man la. damay toog di leen seetaan. mais l'idéal était que ñun ñëpp. ñu réunir waxtaan. trouver benn solution. Mhm. ànd liggéey. c'est la meilleure solution. yéen a bokk li ngeen bëgg. ñoo bokk li ñu bëgg. leneen lu fa waay defit mhm. sa bopp ngay nax rek. Bambey ñun ñëpp dañu xamante. Mhm. Bambey af kii bu ndaw la. du lu rëy. mais pour vous dire que ni damaa toog di leen seetaan. mais man ak ki nga xam ni tey mën naa ne ñun ci initiative gëm sa bopp yi lañ bokk. kooku réeroowuñ ci dara. keneen koo xam ne nag à Bambey yow. yow yaay réclamer être le le leadership le responsable man jox naa la cër boobu yaa aucun souci. <laughs> dëgg la <laughs> jërëjëf élection locale yi nga xamante ne euh, yi ñu jëm nii Bambey euh, kan la fas yéene àndal yéen yi nga xamante mooy gëm sa bopp Bambey. waaw xam nga man dama toogoon mhm. boobu mhm. euh, coalition bi bërki démb la. waay bërki démb la de. boobu ku ci nekk amoon nga libroon nga. Mhm. xool ku la neex nga dem ànd ak moom. mais dafa am loo xam ne nag. boo nekkee ci benn kuréel. Mhm. nga nekk ci benn mouvement bu mag comme gëm sa bopp. Mhm. tey bu ñu tëralee ay charte mhm. amoo droit jéggi ko. amoo droit yi def loo xamante ni nii. wax dëgg yàlla da ngay dangay da ngay def lu la neex déedéet. gëm sa bopp. ñu man ci laa nekk. te bu soobee yàlla maa ngi ñaan yàlla gën ci nekk. parce que wax dëgg yàlla. mbir doo ko door ba pare. dem di ko bàyyeeg ñeneen. mais début bi dama teeloon a déclaré. wax fësal ki nga xam ne ni moom laa bëggoon a jàppale. Mm-hmm. yàlla dogal muy Pape Mamadou Diop. Mm-hmm. et que Pape Mamadou Diop boobu sax d'ailleurs fexe woon naa ba mu waxtaan ak Bougane. Mm-hmm. ñu defoon benn genre do genre coalition. mais àdduna da gis ni mbir des fois dina am. nga am yéene nga bëgg. coalition am na. te coalition bi gëm sa bopp pour le moment mi ngi ci. parce que ñun ñëpp boo leen demee keroog gis naa leen yéen a nga woon ci foofu noonu mm-hmm. gis ngeen ñu fa mm-hmm. kon man damay tënku rek ci sama ginnaaw kilifa wax dëgg yàlla mënuguma mënuguma wax dara mënuguma wax dara parce que opposition bi au niveau de Bambey dajeeguñu mm-hmm. pour waxtaan ay Aïda Mbodj nag sama yaay la waaw c'est une maman à am na fu mu jaar ak sama waajur bu góor fu bari euh, du du damay toog ba tey ci politique di ko wax lu ñaaw di ko wax lu def système bu dafa mel ne système non du yomb xam nga tax du yomb parce que Aïda quoi qu'on dafa xeex ba am li mu li mu am dëgg la la lion du Baol moom moom moo ko am te dootoo gaaw a dégg la lion wala le lion tur bi xas na koo jël ba pare nit da ngay nangu dogalu yàlla ayda ba ñuy doon tout tànk lañ koy gis muy politique ba ñu màgg fekk ko ci politique bi maa ngi ko doon tooñ sa benn émission naan ko bàyyil xale yi nag mag nga gungeel xale yi mhm. mais base politique moom bu ñu bëggee bu ñu waxee lay dëgg rek am na ko mhm. te it nag man franchement maa ngi déglu buggaan daal ñu ngi waxtaan <laughs> euh, bés buñ ci paree ci ni ñu war a doxalee à mhm. man dinaa taxawaat waxaat ba ñëpp dégg mais comme man dañ maa dama am ay kilifa te damay waxtaan ak i kilifa te du ma parparloo te yàlla dogal na li may wax bariwut te su ma waxee rek dafa am fu ma koy teg kon nag maa ngi waxtaan ak moom. Mhm. suñ ci noppee rek dinañ xam réellement fan lañ jëm. dëgg la incha allah jërëjëf Mara ñu ah, amati mbégte kontaante nee la ñuy demee saa suñu invité suñu bi nga xamante ne mooy Mara gëm sa bopp. gis nañu ne ah, coalition bi dajaloo def benn bu am solo. Mhm. pour li nga xamante ne pour si si euh, élection locale ak yeneen ak ku ci mel ne Bougane ñëwoon na ci keroog mu gedd lan moo waroon gedd Bougane bi. bon mhm. Bougane du kuy gedd. du kuy gedd gedd maanaam xale mooy gedd. Bougane nit la koo xam ne dafa am ay principe mm-hmm. parce que moom moomut gëm sa bopp mm-hmm. ci biir gëm sa bopp dafa am coalition bu mag mm-hmm. coalition bu mag boobu jox ko nombay jox ko baat bi kàddu bi na ko yabal nañ la pour que à ce que nga dem nga bokk ci quoi la grande coalition de l'opposition waaw bu loolu amee su ñu ñëwee gis ay manquement Bougane am na sañ-sañu wax ni lii neexuma parce que boo nee mbir dafa am ñu ni coalition li ci gën a rafet mooy ñu waxtaane ko tur bi couleur bi ak yu bare bare bari moom gis na ni boolewuñ ko ci bon ci waxtaan bi comme nan euh, ñàkk booloo bi waaw ñàkk booloo bi mooy rek mm-hmm. euh, euh, dañ ni coalition kaay leen ñu ànd ñu liggéey mm-hmm. kon yaakaar naa lépp lu ñu coalition bi di def daf ko war a waxtaanee ak ñëpp ñu ko seq mm-hmm. parce que tey boo fekkee ni yow da nga da nga ñëw rek di décider li ngay décider sans autant boole ci ñi ci bokk mais loolu dafay mel ni yow ci coalition bi daf ci am ñoo xam ni. Hmm. du ñu réeroo mais ñeneen ñi bon garaawut ay outside lañ rek. bu gaan noonu ku xam gëm sa bopp xam ni gëm sa bopp est devenu une réalité. kenn mënut a def dara. te coalition bi maanaam euh, bugaan bu mu ñëwee si gis son boppam boo waroon keroog. mu waaw waaw gisu ci non seulement. Mm-hmm. Euh, gisu ci boppam. Mm-hmm. mais comme moom dafa nekk nit koo xam ni. Mm-hmm. malgré tout nit ko am yar la nañ ko ko nangul mhm. nit ku gëm boppam la tamit nit ko am fulla la ndaxte mënoon na def ni moroomam yi def gis loolu ba pare toog mhm. Bougane c'est pas un hypocrite moo tax moom def politique am day metti mhm. <laughs> par contre les autres <laughs> des réagir <laughs> mën nañ gis ne lii du yoon mais il préfère noppi di ko wax ci suuf dëgg la comme lui c'est pas un hypocrite il préfère wax ko ba ñëpp dégg ko moo tax Bougane day jafe comprendre trop trop trop trop dëgg la mais ñun ñu nekk ak moom réeroowuñu ñoo moom ci dara mhm. nit la ko am ay principe nit ku gëm boppam am fulla am fayda mhm. ba mu ñëwee gis na ay manquement wàcc na xalifa topp na ko ñoom Bart waxtaan nañ ak moom la ñu waxtaane d'ici des jours à venir mhm. je pense que nii dina am ay résultats yu am incha allah. dëgg la euh, noo gisee opposition bi euh, ak coalition bi nga xamante ni taxawal nañ ko tey noo gisee leader yëpp yëpp ku si mel ne Ousmane Sonko Khalifa Sall Bougane ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi ci biir li nga xamante ni tey mooy ci liggéey boobu tey ba yëg nga ci am. waaw mm-hmm. am naa ci contenté bu baax. Mm-hmm. parce que ñoom ñëpp à part Khalifa. Mm-hmm. c'est la jeunesse. seen différence d'âge yi. méttiwut. par rapport ak coalition yi ñu fi daan gis pas yoo xam ne dañuy yor ay yat ak mhm. ñii di sëggat ñii di dox boo xoolee lii da ngay xam ni franchement mhm. lii c'est le c'est en fait c'est la jeunesse quoi ñoo mhm. ñëw taxawal coalition bu mel ni dama ciy kontaan mais nañ ko teg ci dëgg bañ a naxante parce que tout le monde ñu ñu bëree ngi wax naan affaire bi du dem nan moo waral loolu noo ñu bëree ngi ko wax parce que <laughs> euh, début bi boo leen xoolee quatre quatre parties lañu annoncé woon waay PDS PUR mhm. euh, taxaw Dakar mhm. Pastef waaw presse bi yëpp di wax ba dernière minute mhm. liñ ci dégg dégg nañ ko ci PDS génn ci après lañu ñu ah, woote génn PDS lan moo war non man man man dama jàpp benn mbir man dama jàpp ni PDS réeroowuñ ak Macky Sall hmm. duñu ay xale quoi <laughs> dama jàpp ni PDS réeroowuñu ak Macky teyit nag euh, damay lancer un appel pour wax ni opposition bi mhm. yeewi askan wi mhm. nañu prudent te teey kon maanaam ñu toogee bu ñu déggee ëllëg ne PDS dem nañ après bu mu bett nit noo non cest gis nga mhm. ana Idrissa Seck Mburok Sow demut <laughs> lu mu fi waxut ci lu ñaaw Macky Sall amut ay nitam lu ñu fi waxut Macky Sall ci lu ñaaw amut dañoo xëy dem parce que ñoom loolu safu leen gis nga ñoom. Mm. taxaw saaga nit wax nit xas ko wax ko lu bon lu ne xëy suba ànd ak ñoom safu leen. <laughs> par contre ñun gëm sa bopp mënuñu loolu. moo tax ñun. Mm-hmm. Euh, stabilité bi ñuy bëgg ak droiture bi ñuy bëgg. ci mm. affaire yi day xaw a metti. day xaw a metti. Mm. parce que ñun ak ñoom yemuñu doxalin bokkuñu gis-gis. Mm-hmm. mais yàlla dogal na tey. ànd bi c' est une demande sociale il faut ñu ànd mais nañ ko teg ci dëgg te bañ a naxante mais maa la ko waxaat fii PDS uh-huh. ba fa muy mujj <laughs> Macky la ñuy liggéeyal <laughs> jërëjëf Mara uh, ñu gis uh, temps passé bu buggaan amoon na benn convocation bu mu jotoon mm-hmm. uh, boobu ak léegi fi ñu toll ci li nga xamante mooy dossier boobu waaw convocation boobu moom mën naa ni sax buggaan mënoon na sax bañ a dem mënoon na toog yabal benn Mara man wala kenn na ko demal nga jëli ko mm-hmm. mais moom comme li ma lay wax rek nit la koo xam ni moom fitam mm. ragal mais convocation la woon boo xam ne affiche yi nga xamante ni nii daf doon insister à ce que les jeunes wala képp koo xamante ni nii sénégalais nga nga dem inscrire loolu de lañ ko waxee na ko na ko dindi parce que mën na nekk trouble à l'ordre public affaire yooyu noonu di ko jox benn lettre de notification xam nga d'ailleurs loolu <coughs> franchement c'est yàpp sénégalais yi la yàpp sénégalais yi weesul ay affiche yoo xam ne affiché nañ di di insister à ce que les jeunes dem jël seen ay dem dem bindu ji. Mhm. pour mën a voter. nga ne loolu trouble à l'ordre public la. Mhm. trouble à l'ordre public kay ñoom ñoo ko def. ndax ñun bu ñu ci opposé woon loolu mooy créer trouble à l'ordre public. mais ba ñu waxee Bougane Bougane dañ leen dindiwuma ko. ñu ne ko 24 heures lañ la may ñun dinañ ko dindi mu leen dindi leen. te ba yaakaar ni bon amul suite ah parce que affiche yi boo xoolee am na yu ñuy commencé dindi. Mhm. am na yu ñu commencé bàyyi. loolu li ñu ci jublu woon leen la jour boobu Bougane dafa déclaré woon. que ni day dem ci banlieue bi. boobu inondation yi metti woon na gars yi ñu ngi woon au bout des nerfs mm. ñu yëg ni dafay dem bu demee day yóbbu ay moto pompe xam nga moom borom teranga la moom fu mu dem mm-hmm. moom dafay bàyyi loo xamante yi nii loolu lañ bëggoon yàq rek nga xaar ñu yóbbu ko police centrale mm-hmm. bu fa demee toog ba yenn heures yi après voilà loolu la woon du dara <laughs> mais vraiment amul suite waaw personnellement man déggaatuma ci dara fan ñu ngi gis li nga xamante ne actuellement mooy ngeen ci wax en tant que yéen waa gëm sa bopp da nga gis koo xamante ne tey day dëkk géejawaay parcelle dem di bindu fa ñëw comme ku si mel ne Derkel di fi bindu wala ku mel na ku dëkk Kër Massar di bindu ji am mairie Grand Dakar te loolu gisee loolu waaw mais loolu du lu bees hmm. élection présidentielle 2019 bi hmm. am na dafa fan yi gis mu ngi indi coow lii mbaa bu ñu demee ci élection locale bi indi beneen jéeya non loolu sax gis nga li mu mën a indi hmm. xam nga Sénégal buñ gisee benn situation duñ tëb tëb taxaw ci faj ko dañuy bàyyi ba mu jéggi dayoo. Mm-hmm. ñu doog ciy jug gis nga affaire bii nii. Mm-hmm. situation bu garaaw la te mën na indi lu ne ci réew mi. Mm-hmm. parce que amul kenn kuy nangu. ay transfert directeur ci commune amul kenn ku koy nangu. ñun ñi dañ koy dénoncer. parce que loolu noonu cela veut dire tout simplement que maire yi nga xamante ni ñoo nekk ci zone yooyu te di ko def liggéeyuñu. fii ku liggéey. sa askan xam la nga wóolu sa bopp da ngay tëdd nelaw mais vu que ñi ngi doxalee nii. te nga baal ma ñoom. Mm-hmm. bu ñu sàccut duñ gañe. ñoom fi réew mi toll. ñalla ci ñoom. <laughs> ñoom bu ñu sàccut duñ gañe. <laughs> yaa ngi may dégg. Mm-hmm. lu leer laa la wax bu ñu sàccut du ñu gañe te man dama rus xam nga lu tax. Mm-hmm. Sénégal c'est la première fois ñu am président boo xam ne saa yu gañee élection ñu ne dafa sàcc. maanaam fës bi nii mu amee nii quoi xale yi sax dañ koy waxtaane yow balaa résultat yee génn sax. sa ay militants wala ñenn ci ay responsable dañuy génn teel la wax ni résultat bi lii la pour centage bi temps la loolu ci ci nguuru Macky Sall rek la am de bon ba tax na lii ñuy def nii ay habitude la xam nga loo nàmp tàmm ko jikkoog borom ba ci pax lii duñ ko bàyyi moom la ñuy yóbbu ba élection deux mille ba deux mille vingt quatre ñoom bu ñu sàccut duñu gañe te balaa maa dee ñu naan élection Sénégal kenn mënu koo sàcc kenn mënu koo def lii loolu ay wax la rek déjà transfert directeur yi ñu def nii. Hmm. benn xeetu sàcc la rek ku nekk Kër Massar war a toog Kër masaar voté nga ne ko Pikine hmm. wala nga jël ko yóbbu ko fas Mbaaw hmm. wala nga jël ko indi ko Gueule Tapée Gueule Tapée mais loolu wax dëgg yàlla yow mii sax en tant que journaliste xam nga ne loolu du jaaduwut te actuellement moom lañ nekk di vivre ba démb xaw ma bërki démb gis nga Barthélemy ak euh, Abbas il a fay ay coup de point ak lépp loolu dafa ñaaw dafa ñaaw maire yi ñoom liggéey liggéey nañu ah mais nañ toog dem tëdd nelaw bàyyi gars yi dem inscrire normal mhm. le jour ji dinañ xam kii kii ak kan moo man mhm. man pour man daal lool la mais daal transfert d'électeurs et puis ñi ngi koy sant ñu di ko def mhm. ñi ñi ngi ci seen bakkanang ci xott waaw foofu laa yem dëgg gis nañ euh, ki Bougane euh, jamono jëppaa ci ginnaaw doon def ay tournée ci yeneen dëkk yi ak yeneen secteurs yi di daw di nemmeeku indi ñi tournée yooyu noonu euh, Mara yan résultat ngeen ci am ak yan résultat ngeen ci gis actuellement nii ba tey Bougane mës ta toog ok depuis 2018 avant 2018 sax ba tey ji mosut a toog. mais dañuy gis ne ak tamit dafa gën dafa gën a fës. waaw parce que mbir am na fu muy toll demande sociale la. nit ñi ñoo naan ko ñëwal. nit ñi ñoo naan ko ñëwal muy dem. tey nag duñ ko dakkal il ñuy dem ci nit ñi di waxtaan ak ñoom. parce que ci kaw loolu la ñuy xamee réellement. jafe-jafe yi askan wi di dundee. te askan wi ku ko wax ak ku ko waxut askan wi sonn nañu. Mhm. donc ay Fouta Tampi dañu waa Fouta baax rek. Mhm. naan Fouta Tampi mais Sénégal may. Sénégal may Sénégal moom fi mu toll nii. <laughs> Ah. fépp la fépp ay metti donc moo tax président Bougane ci bëgg-bëgg réewam. Mhm. nekk un vrai patriote. Mhm. muy jël otoom jël logistique am jël alalam jël léppam. Mhm. dem envers la population. xam seen ay jafe-jafe loolu rek moo waral tournée yi. moo waral tournée du leneen waaw dëgg la mm. ah, li nga mooy jiital gëm sa di Bougane ci fan yi pass gis ni mbënd bi nu mu def ci banlieue bi. Mm-hmm. maanaam yan jéego la ci doxoon. non non non mhm. à chaque fois ñu yëg ko ñu bañ ko yëg. Mhm. c'est un homme social. kooku moom mbënd am. Mhm. mbënd bañ a am. Bougane loxo mësta jug ci askan wi. am na ci nag loo xam ne peut-être que du ñàkk euh, la technologie est tellement développée de telle sorte que téléphone yi bu génnee nit ñi di filmer ou pas mais ay contribution vis-à-vis ci inondation yi cette fois si daf ko procéder à une autre manière def na la muy def. Mhm. joxe na la muy joxe. Mhm. toog na jàpp na ñàmburam. dégg la maanaam xiif dikkal nañu ceeb yokku na diwlin yokku na. Mhm. yeneen yëpp loo xamante ni jumtukaay la jumboo fukki dërëm léegi lay jar bu doon juróomi dërëm. lépp yokku na. lan la fi ñu jëm ak réew mi. mais loolu président Bougane waxoon na ko fi. nit ñi mais mënuñu koo dégg. newoon na vous avez choisi la continuité. di ngeen gën a sonn bu demee ba jumboo bi nga xam ne sax pratiquement ñu bari utiliser tuñ ko. mu dem bay jar fukki dërëm. ci réew mi toll nga xam ni gouvernement bi nga xam ni tey ñoo ñuy gouverner dañoo amul yërmande rek ci askan wi comme amuñu yërmande ci askan wi ñoom xam nañ ne problème mu ceeb amuñu problème mu dawlin de seeni mbokk yi leen jege te leen di tàccu lu ñu wax ñu ni noonu la amuñu problème mu ceeb ak dawlin mais askan wi nga xam ne tey bu vote jotee ñoom ñooy dem tànn moo tax askan wi ñoo war a am fulla am fayda bu vote jotee ñu xool bu baax ci baax ci réew mi parce que ñun dañuy fal nii rek. Mm-hmm. diw diw doy na jóge fi kii moo ñu doy déedéet dañoo war a xool bu baax ki ñu fi war a teg. Mm-hmm. te nag président Bougane damay wax ni boo jiitee ay nit te yërëmoo leen. Mm-hmm. ah sa nekki ak ñoom du neex Macky Sall yërëmul askan wi ñi mu nekkal yërëmuñu askan wi. moo waral situation yi am nii. c'est déplorable. parce que boo xoolee di ci mel ne ñu ngi jëm si màggal Touba. suukar amul te milliers yooyu dañ ko ci soxla. ak yeneen ay yeneen yoo xamante ni tey dañ koy ci côté milliers yooyu. booba léegi ministère bi. génn def wax na li nga xamante ne tey mooy discours am mais boobu ak léegi gisuñ ci benn changement. Mhm. waaw mais xam nga changement bi. Mhm. nous avons un gouvernement à chaque fois il fait des promesses sans autant promesses yooyu mu respecter ses engagements. Mhm. moo tax man nous avons un régime boo xam ni tey man lépp lu ñu wax du ma ko gëm. tant que gisuma. lu ñu wax dama naan waaw. mais màggal gii di ñëw. mën naa ni tey buñ ko yokkoon ba nga xamante nii même bu jumboo doon jar deux cent francs. màggal gi du tere dina neex parce que màggal beneen beneen beneen philosophie la ngëm-ngëm la goo xam ni seeraay bi duñ ko yëg ñoom ci période màggal bi après peut-être mën nañ ko yëg parce que ngëm-ngëm gi la donc dina metti ci ñëpp ah saa ça muy màggal que ça soi muy leneen ak leneen ak leneen yokk gi moom fi mu nii fépp la méttee ñëpp ko yëg waaw ñëpp personnellement man mii di wax nii. <laughs> yëg naa ko à 100 pour cent ba nga xam ne <laughs> ñun boroom kër yi. waaw day sonn nañu dëgg la te gouvernement bi dimbali daal. dëgg waaw ñu wàññi ko ñu ci mën a nañu wàññi lépp. dëgg la waaw nañu wàññi lépp. dëgg la seen yéene si seen si réew mi yéen gëm sa bopp seen yéene si Sénégal actuellement fa foo ñu bëgg a jëlee ak fa la ñu bëgg a jëmee. waaw xam nga réew mi moom mhm. euh, yéene biñ ci am mooy incha allahu rabbi mhm. bés bu ñu yàlla dénkee réew mi mhm. dinañ xam sunu yërmande déjà rek yoruñu réew mi mais. suñ président tey li tax nit ñi naw ko bëgg ko rek mooy social bi. yaakaar naa nag ku yoragut di def loo xam ne nit ñi ñu ngi la ciy naw di la bëgg bu la yàlla dénkee réew mi. je pense que ni da ngay yokk rek mais dootoo wàññi. et que président Bougane. li may wax à chaque fois rek moo gën ci Sénégal. moo gën ci askan wi. te askan yi nañ ko bàyyi xel ndax borom xol la borom yërmande la. Mhm. waaw kon de de ñu rendez-vous 2024 incha pare ngeen pour. Euh, non loolu moom quel que soit. quel mhm. alpha situation bi mën a am. Mhm. gëm sa bopp day présenté wu. dégg nga jërëjëf li ñu amoon ci temps jeex na. waaw di lan ngay tàggatoo ak li nga xamante ne mooy waa gëm sa bopp lan ngay tàggatoo naw réew mi. waaw bon man la li may tàggatoo rek mooy d'abord di la remercier waat bu baax. vraiment ci temps bi ma la jëlloo yëpp. <laughs> vraiment. ay deux semaines. dëgg la ëpp na ko. waay yaa ngi may woo foo toll. pour que ñu mën a def émission bi. Mhm. bon di la ci jéggalu xam ni mhm. manque. Euh, non temps manque de temps loolu rek. Mhm. leneen li may wax rek mooy di remercier Bambey gama dëkk jeunes yi nga xam ne ñoo bokk ak man gëm sa bopp. comme lu mel ni Thiendou Thiam. nga xam ni wax dëgg yàlla mi ngi def liggéey bu am solo. ci Bambey ñoom maam jaara ay Amina ñoom ñëpp. surtout Thiendou dafa nekk nit koo xam ni tey mën naa ne moom laa bàyyee lépp à Bambey. soo gisee je ci yu bari mais ñu ci dara ñu ngi déggoo ñu ngi waxtaan ci lu ci lu bari au niveau de Bambey mais tuuti que boo xoolee Bambey actuellement nii mhm. lycée ba na mu mel ñaaw na ak ndox yeeg bare bare parce que dafa taan ay ndox yu bari ñu ngi fa terrain yi yëpp dafa yàqu actuellement nii waaw mais xam nga inondation Bambey dafa nekk lu yàgg mais am na nag am na ay jéego yu ñu ci def nag quoi qu'on puisse mhm. xam nga man li di def du ma ko def le ah. maire actuel ñu koy sànni waaw ah, mu ngi liggéey. quoi qu'on puisse dire il a travaillé parce que nit da ngay xool bi muy jël mairie bi. Mhm. fan la mairie bi tolloon ak moom bi mu ko jëlee fan la ko yóbbu. loolu moo am solo. Gana c'est un frair à moi. Mhm. su liggéeyutoon damay taxaw ni liggéeyut. mais ci résumé mu gànna mhm. lu bari soppeeku na à Bambey nañ leen ko nangu. léegi nag Bambey. est libre de choisir un autre maire bu dul Gana mais man Gana ku dul Gana ku def lu baax dinaa ko wax. jërëjëf ñu tëj kon kon tàggatoo bi. maa ngi lay jaajëfal. jërëjëf di la di la remercier bu baax Abou. merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup jërëjëf.